veteran American civil rights campaigner Reverend Jesse Jackson left Banjul on Tuesday after securing the release of two Gambian Americans who were serving life prison terms. Works and Construction Minister Francis Littenboge has outlined the benefits associated with the ratification of the Islamic Civil Aviation Council Statute. Ivorians have urged the Water Administration to open an investigation into the gruesome killing of former head of state, General Robert Gay. And despite the mounting Taliban attacks on coalition troops, Washington is pressing ahead with the handover of authority to Afghans. You are reminded that you can follow those stories on GRTS Radio Live on our website at www.grts.gm. That's all in this newscast. Thanks for the pleasure of company and do stay tuned to GRTS and enjoy the range of our programs. From me, Farmer of and the rest of the news team. Bye-bye. services xam nañ ne dimbalante mooy yokk koom-koom réew mi te it dàq ñàkk suñu biir ba tax nañu yombal te it gën fee gaaw la yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ci mi yëpp ci bu sa benn bouton rek sa saasi ba tax na Moussa yaa ngi nii ci Banjul yónnee xaalis contracteur bi ca Basse Ablaye yaa ngi nii Serekunda di yónnee school fii ci doomam yi ca Banjul ay setoo ngi nii Brikama di yónnee yaayam xaalis ca Soma moo doo ngi nii Farafenni di yónnee nijaayam xaalis ca fépp fu waaye wala jot sa yóbbante xaalis Financial Services am ñaar place yu baax ci mi yëpp sonn ci lu yomba kon ak ci lu yomba te gaaw It is a tournament that captures millions of viewers around the world. It is the most prestigious club competition in European and world football. This is the European Champions League starting September 18, 2012 sponsors invited. ministre bi di ñëw. ndég ministre bi mooy ñëw pour wax waaye dinaa won mbooloo mi ne. ragal. ñii wax. na ngeen bàyyi ñuy wax. ma am na ñeneen ñoo xam ne. ñun Gambia. dëkk bu am yar la. ñun duñ xas kilifa. ñun duñ xas buur. ñun duñ xas ku ñu jiitu. ñun ñun ñun nguur ñun ñun luñ ñu yaree. ñun luñ ñu ñun duñ xaste. ku amee xasteem nag. yëf soo ko seetoo. xam ngeen la ci nekk. mooy añaan. dañu añaane ci suñ jaama juñ am dañu añaane ne suñ paa dinañ dox dem ju añaanee ne ñun suñ kilifa dinañ julli fajar dañoo añaanee ne ñun suñ jigéen dinañ taka or ba ci guddi ñuy dox dañoo añaanee dañoo añaanee ndig ñun suñ dëkk bi dafa peaceful lii soo ñooñu suñ ñoo ŋaaña liñ am lañ amut kon ñun liñ am dañ koo bàkkoo dañ koo njëriñoo te dañoo dox ak moom Gambia is a peaceful land duñ nangu kenn ku ñu ko yaaxal duñ ko duñ seetaan kenn ku ñu ko yaaxal kon ñuy wax di yuuxu wala na ñu ñoo ñu ñëw ci Gambia ñu jàngee naka la ñoo respect kilifa ñun lu ñun lu tax toroxuñ mooy dañ am respect pour suñ kilifa yi looloo tax doo leen fi gis benn problème waaye koo xam ne bés bu nekk suba ba guddi yoo nekkuloo dara lu dul di ŋaamu rek wax rek wax rek wax rek te doo wàllu am fayda doo wàlluy njëriñ sa réew ñun faalewuñ ñooñu kon li maa def mooy kon maa def mooy and sports. And sports. Uh, Honorable Aliu. Kema. Tamba Jambi. léegi balaa ministre bi di ñëw. geldi, eftara geldi, eftara geldi. Yere geldi, eftara geldi, eftara geldi. Yere geldi, eftara geldi. Yere geldi, eftara geldi, eftara geldi. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you.